الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق خدره ومقدار عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi santaat yàlla beneen yoon ci jotaay bu barkeel bi di ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul thème bii nga xam ni moom lañ ñu jox muy les merveilles de la fayda tijaniya dafa laaj ñu leeral tuuti balaa ñuy dugg ci thème bi lan mooy merveille mervei maanaam lu tumuranke lan lu tumuranke lañuy gis ci faydu wala faydu indi te gisuñu ko avant faydu di ñëw léegi sax lan mooy faydu boobu tamit jar na taxaw jàngat ñu bëri ñi ngi koy dégg yaakaar ni amaana Baay Ñas mi nga xam ni moom mooy saaxibul fayda tijaniya moo ko créé wala moo ko indi tukkeewut ci moom fayda jàngkat yaa ngi fi képp ku lire téere Seydi Tayib soufiani ci ifadatul ahmadiya mi ngi ko fay wax ne taxtil fayda ala ashabi hatta yudxulu naasa fi tarixatina afwajan fayda maanaam ab bëbb la ab waame la wala boog nga ne luy tuuru la luy rogalaat la luy bëbb la ànd ak doole kon loolu loo ciy déggee lépp lu taxaw ci kanamam da koy fël yóbbuwaale te fël boobu mu koy fël yóbbuwaale da koy indil njëriñ ñeel ko kon waame la waame lan la waame maanaa la waame boobu lan lañ lan lañ koy misaalee mu mel nii diine ji dafa tumuranke woon lu tax mu tumuraanke lan moo tax a jug diine bi pour jël jaam yi wammat leen ci xadara borom bi subhanahu wa taala mu mel nii ñafa nekkoon dañoo gàg ci boobu maqaama mënatuñoo walla amuñu cër pour jëriñ jaamu yàlla yi en masse ñu jëriñu ci yàlla dellu ci yàlla am ubbeeku ci yàlla moo tax nag Seydina Cheikh wax ci wax ci téere Ifaadatul Ahmadiya boobu Seydi Seydi Tayib Soufiane indi ko Seydina Cheikh ne ci sama tariixa bi lii ñuy oowee faydu dana ci feeñ mbëmbëstal boobu teraanga boobu ubbeeku boobu waame boobu ci loxo kenn ci suma saaba yi te bu dikkee ay kuréeli kuréel yu fasantikoo danañ daw dugg sama tariixa bi kuréel yu fasantikoo tegtal boobu bi ko bi Seydina Cheikh waxee loolu ñu bari nag yootu nañ maqaama boobu bëgg doon ki nga xam ni mooy roose leer jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo màndi dañoo mar leeru yàlla ñu bari séentu nañ maqaama boobu dugg nañu xëlwa pour maqaama boobu wàcc ci ñoom ñu mën a jëriñ jaamu yàlla yi ci yàlla ñii dugg nañ ci xëlwa ñii daj nañ ci lu ne waaye yàlla ci loxo Maulana Cheikh Ibrahim la ko teg faydu boobu nañu bàyyi xel ay kuréeli kuréel ñooy dugg ay mbooloo mbooloo ñooy dugg ci biir tarixa bi en waaye yu fasantikoo fasantikoo mooy du der bu ñuul rek kay ñëw du der bu weex rek ay ñëw du der bu xonq rek kay ñëw du der bu jaune rek kay ñëw yépp ay àndandoo ñëw bu ñuul dana ñëw bu xonq dana ñëw bu jaune dana ñëw bu weex dana ñëw mbokk yi may déglu xam ngeen ni kuréel boobu feeñu lu mooy ci loxo Mawlana Cheikh Ibrahim nga doon taalibeem wala nga ñàkk a doon taalibeem bu fekkee ne yàlla rek a tax ngay wax mbooloo bu fasantikoo boobu ci loxo laa naa Cheikh Ibrahim la feeñ moo tax nag mooy le sahib de la fayda mooy le détenteur de la fayda fayda bi ci doxoom la wàcc fayda boobu jar na taxaw yaakaar naa lu nit fasaaxa fasaaxa bàyyi la gën a jotale moom mi nga xam ni moom la faydu bi wàcc ci moom ñi ngi nangoo ci làmmiñu almarja la professeur Ibrahima Mahmoud Diop yal na yàlla yokk leeram mu ne baayam Mahmoud Diop mës na waxtaan ak baay ba laaj ko ne ko yow nan nga may explique fayda baay ne ko téyel juróom yi imagineel juróom yi ma lay bëgg a wax mu ne ko imagineel teen boo xam ni du ngacc mukk baag ñi xamul baag buum la boo xam ni da nga ciy yoor siwo walla boog dara loo xam ni day contenir ndox nga dugal ko ci biir teen bi mu jëlal la ndox pour indil la ko baag boo xam ni du màgget du yàqu mukk mu ne ko imaginel waxambaane boo xam ne dafa tollu ci digg dooleem am kattan di root ci teen boobu te du sonn mukk mu ne ko imaginel ndox boo xam ni mi ngi jóge ci teen bi bu ci xësee ba jóge dootu ci dellooti te ndox boobu araam na mu laal suuf kon lan mooy yell nga ut bassin boo xam ni mooy dékku ndox bi bassin bu yaatu bassin boobu nag baat bi du yàqu ndox bi du jeex waxambaane bi du sonn muy root rek te du arrêté bassin boobu fu mu jëm yàgg yàgg fees kon lan mooy war te ndox bi war talaal suuf li war mooy utaat yeneen bassin yoo xam ne dañ ko ciy toftal ndox bi di rogalaat di dem ci ñoom loolu mooy waame bi moo tax du mës a taxaw léegi nag liyaar boobu dafa laaj firi teen boobu nga xam ne du ngàcc mukk mom moy borom bi subhanahu wa taala la fa nek du ma sa jeex lu sax dak la ki nga xam ni mooy baag bi bag bi mom ngay yor pour jël ndox bi genné ko moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ibrahim firil nañu ne yonent bi moy bunt ak yàlla kenen kudut dul yonent bi munoo jele ci yàlla. يونت بي موي جيلي سي الله صلى الله عليه وسلم سدله موم موي ابو القاسم لغي نك كون موم موي باغ بي وخمباني بومغا خامني دو سون موك دي روت كوكو موي مولايا شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه موتا مو تخاو سي مقامام با ن لا يشرب ولي ولا يصحى الا من بهرنا من لدن ادم الى نفخ في سور بن غور يالا دو نان لير wala mu koy nandale lu moy ne ci man mii la koy jëlee moom moo am kattan mooy roor mooy root moom mooy roose min la dun aadama ilaa nafxi fi suur waaye ndox boobu nag ndox boobu mooy lan mooy xam-xamu maxrifatu billah bi aarif billah yi di mos moo tax bi ay dafa yëkkatee ñëpp di pët-pëti ku ci mosul tekk ngay def ne ñii dof lañu dañoo mosloo mosut dañoo jaar foo jaarut moo tax di yëg loo yëgut di mën a wax loo mënta wax léegi nag bassin boobu bassin boobu mën nañ ko mellalee Maulana Cheikh Ibrahim moo tax bi nga xamee ni bassin bi ñu ngi koy duy di ko duy di ko duy bu daan toog di wasifa pour toog nii sax du ko mën day soonu parce que mbir maa ngi fees ba mu nekkee Koosi Sikar di takk ndigg li dem na ba ne ana Ibrahima ana Ibra Fall mu ne ko mi ngi maa ngi nii ñas mu ne ko takkal ma sama bopp bi balaa moo toj Ibra Fall ne ko bàyyi yuri ma li ci nekk waaye bi nga xamee ni ñi ngi duy Cheikhu Tijaan radiyallahu taala anhu mi ngi sotti ci bassin bi di sotti di sotti di sotti dem na ba ci ne imtalal xawdu wa xaala xëtt nii maxlan dan xat malak te bëtt nii mbalka bi fees na defal ndànk ku muy waxal Cheikhu Tijaan mbir maa ngi ëpp fekk boobu gars yi kenn naan gut après nag ñu commencé teg bassin yi ñoom Cheikh Ibra ñëw Cheikh Omar Touré euh, kii nga xam ni mooy Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Alioune Cissé damet mu xaddam yooyu ñoom i tamit si seen bassin yi ñeneen rootee ci mbir mi di law di law di law di law te dootul dakkati ba mukk mu ne ko kon ci misaal lii mooy faydu léegi nag dana yell ñu wax lan moo tax faydu ñëw ba léegi boobu tamit dañuy delluwaat ci Maulana Cheikh Ibrahim parce que loo xam waa ngayeen magay gay bi dëkk ngayeen gën laa xam waa ngayeen kon yooyu buñ ciy wax rek bul indi sa xalaat bul indi sa xam-xam dellul ci Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu bàyyi mu mel ni muy tontu question bi mu ne hikmatu bi tax faydu bi wàcc du dara lu moy jamono ji dafa doon jamono boo xam ni euh, mooy yàlla daf fi bëri nit ñi dëddu seen borom daf fi bëri nit ñi jublootuñu yàlla madda yi moo leen itteel jamono bi yàqu na kenn dundatul yiw boo ko dundee tamit ci kaw la rek waaye ci biir dara nekku fa mu ne jamono ji yàqu na bëri na ñoo xam ni ñi ngi oowee ñi ngi uyoo diine ci turu lislaam mais ci seen bopp la ñu nekk réer nañ ba pare di réeral jaamu yàlla yi mu ne te xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën gi xeet kuntum xayra ummati uxrijat li naas te xeet boobu xeet bu ñu ormal la xeet bu ñuy màggal la xeet bu làmboo yiw lu ñu may loolu parce que sunu yonent mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gënee mboolem yonent yi yi rek noonu la xeetam gënee mboolem xeet yi looloo tax xeet boobu du tumuranke mukk yàlla nag indi lu ñuy wax faydu tuur teraangay maanaa yi bëbbal leen xam-xamu mahrifatu billah xaqaayiq yi mu tuur ko bim ko tuuroo wàccee ko ci jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax mu wax ni waxat xaribal habibu wal mazaaru waxat xaribal habibu wal mazaaru habib bi ki ñëpp doon xaar egsi na mar naan marut naan ndox bi day walangaan lan mooy mar naan warut marut naan ndox baa ngi walangaan balaa faydu di dikk nit ñi dañ daan dugg xalwa ñii fukki at ñii ñaar fukki at ñii fanweeri at pour mos dara ci yàlla mu mel nii da leen a maanaam ku yëpp jërmeel nañ kenn mënatul egg ci yàlla naan danga fay eggale Mawlaana Cheikh Ibrahim bi mu ñëwee nag dafa ne même bu liif fanaanul sa bopp doonal xale doonal jigéen doonal góor doonal mag doonal ku la soob yow bëggal yàlla te dëgg mal ma rek ma yeggale la ci yàlla te benn coono la ci dikkal mu ne tawaytu wa sahaltu الطريق إلى الحق لكل مريد وصل للحق بالحق لمنا naa lu ñu lem guddoon na gàttal naa lu ñu gàttal guddoon na yombal naa li ñu yombal yu jafe woon na ñu ne ko lan bàyyi pour képp koo xam ni na yàlla te dëgmal sima ma ma yeggale la ci yàlla te ben choono du la dikkal kookoy Mawlana Cheikh Ibrahim limu mom yëf yi motax mu sañ ko lo tax mu mën ko lu ko mooy keneen koo ñëw wax ci wàllu yàlla explication yu dul jeex la lay wax Maulana Cheikh Ibrahim jëriñ na góor jëriñ na jigéen jëriñ na mag jëriñ na ndaw jëriñ na buur jëriñ na baadoola jëriñ na borom xam-xam jëriñ nag ay xeeti xeet yoo xam ni kenn mënu leen lim kon loolu mooy xikmatu bi tax faydu bi wàcc tey jii ku gis Sénégal ni fi faydu bi amee doole. dafa jéggi dayoo lu nit gàtt gàtt gis-gis da nga xam ni tey jii xaw ma ban jamono de waaye jamono ji jamono Mawlana Cheikh Ibrahim la yàlla kenn la ci kennaayam gi moom rek a am moom rek moom rek a sañ waaye kenn la yónni ci mboolem mbindaafoon yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa yonentam googu nag wasaare na ko. ci nit ak jinne tasaare na ko Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu moo taxaw ci maqaama seddale moo tax mu ne képp koo xam ne danga nga mos dara ci yàlla ci man mii nga koy jëlee ba yàlla deewal ba ba ba pencam yàlla waaye bi mu joxee bàyyi moo nangu bi mu nangoo ba téye ko ci loxo bi mooy fayda ku ñëwut sa doom dana ñëw sa sët dana ñëw sa dëkkandoo dana ñëw keneen ku dut yow dana ñëw jaamu yàlla yi jëriñu rek la ñu bëgg te yàlla moo def Maulana Cheikh Ibrahim muy jëmmi njëriñ wax na mu ne yiw ak bépp yiw mi ci ànd ak man fal xayru kullal xayri fii suxbati léegi nag dana jot ñu taxaw ci yenn point pour firndeel li nga xam ni moo tumuranke woon te fayda indi ko nit ñi teg ci seen bët mën nañ ko xaaj ci ñeenti parti li jëm ci wàllu diine bi li jëm ci wàllu éducation yarin bi li jëm ci wàllu social société yi société bi ak li jëm ci wàllu politique buñ ci taxaw rek da gis am na ay kéemtaan yu ci feeñ yoo xam ni tumuranke woon na nañu njëkkee ci li nga xam ni mooy ci wàllu diine bi balaa may dem fenn rek ci ñetti mbir lay njëkk taxaw te ñett yooyu yépp dafa tombeeg vendredi defe naa ñépp a ngi fàttaliku vendredi bi nga xam ni moy le 21 juillet 1961 bu la date bobu joxul dara ma ne la mooy nga xamni ni la baye dem Alxazar julli jumaa fekk ko fa mu ñew tok ci sàppe yi tok di xaar imam di ñew al boo boko xamul jappal ni moy université islamique bi nga xamni mbollem kuy kangam ñaareel ci diine lislaam génnee nga foofu wala ki la jàngal foofu la génne ku fa génnee rek dañ lay xoolaat ndax dañ lay respecté parce que bàyyi sax firi na ko nee na bu fekkee ni xam-xam dañ ko jëmbat mun a war mi ngi mi ngi bojjee ñi ngi ko bojjee fële ca Iraq waaye ñi ngi ko ñi ngi ko ñi ngi ko toggee fële nga xam ni mooy euh, Caire Haïra alxasar boobu nag la bàyyi demoon te ci seen fronton université dañ ci bind ne ak noo mënti mel ak koo mënti doon am nañ junni yu mel ni yow wala yu la raw baay dem na xool affaire boobu waaye sigi xool sëgg waaye man sama sob nee naa xam naa wax na ci xelam ne kàcc ngeen tay de bi mu duggee bi imam bi ñëwee war a def xutba bi dafa ne tëll dugg rek gis Mawlana Cheikh Ibrahim ci jëmmam ju barkeel jooju bi mu ko xoolee rek rooxam su jot bu sa rooxo su jotee wallahi dootoo sañati taxaw daan da ngay jiite mu xam ni plus fort a mën fort xam nañ Mawlana Cheikh Ibrahim ci congrès islamique yi xam nañ Mawlana Cheikh Ibrahim ci xam-xam bi xam nañ Mawlana Cheikh Ibrahim ci fasaaxa bi xam nañ Mawlana Cheikh Ibrahim ci barke bi mu ñëw ba ci moom ne ko sëriñ bi. dañoo bëggoon nga jiite ñu vendredi bi bàyyi na tekk professeur muy expliquer tekkaaralam googu nga xam ni lu ne lay junj imam bi ñëw ne nii bu fekkee ni waajaloo ko nañu bàyyi ba beneen vendredi nga may ñu nga jiite ñu bàyyi ne nay léegi jug ci taxawaayam boobu nga xam ni jëmmi barke la te moom wax na sax si boppam wala sa rek ay naaka misliya saa iran suluki wa jës bi wala udumu ndax sa ñaari beut yi mës nañoo gis ku melni man bay di dox di jëm ci yàlla ànd ak xam-xam ak leer yi nga xam ne ñooy daw diko ko utal si bi mu jugee ba taxaw ba jël dokku bi jël loxo bi duggal ci poche bi da ngay yaakar ni khutba lay génné parce que ñom seen bax lolu la da ngay génnee xutba di ko liir waaye bàyyi génnee lunette yi takk aj bët yi ci kaw xutba fa xutba boo xam ni mooy riir ba léegi te téyewul benn kayit lan moo lay wan ni xutba boobu dafa kéemtaane te ay sommité rek a fa nekk ay punkal rek a fa nekk bi mu paree imam bi moo jëlaat xutba baay bi di ko saraa di ko expliquer punkal ya fa nekk kon xam nga ni kon dimension xutba bi kawe na mu ne lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt fàttali nañu fasaaxa yaaram lu mu gàtt gàtt gàtt fàttali nañu ni ñuy jàngee alquran lu mu gàtt jàngal nañu fi lu bëri mu war a génn mu am problème mënta génn ñu tëj ko ci antichambre bi pour lan parce que ñi jëlli si woon foofu yëpp bëggoon gis jëmmam ji bëggoon koo laal barkeelu ci moom mu fàttali ma Soudan benn waay borom xam-xam la bàyyi da ko yéem waaye daa bàyyi ba bàyyi ñëw di saafu wanteeg moom rek mu jël baaraam bi rek matt muucu deret bi subhanallah mu ne ko deret bi bu jaxasoog sama derem sama yaram sama yaram araamal na safara professeur Baraham néna tok deux semaines di faj baramu bay bi ndax waye ñu tejj ko ci bi force de l'ordre lañu muju pour pour ñu ñew pour dak nit ñi pour bay mëna a lolu loolu wut lutax mané fait siècle lañ fondé plus précisément en 972 lañ créé 10 dixième siècle dixième siècle bobo, ba et unième siècle bi étranger Moussoufa faa jiite Maulana, mooy Cheikh Ibrahim te der la lan moy tax nga mën fa djité da ngay don égyptien de naissance jàngee alxazar ñepp d'accord ne yow am xam am nga ko Maulana, lu moy maulana Cheikh Ibrahim ken moussoufa djité té der bu la ku mën nga def doomu Sénégal boobu moko fa muy Maulana Cheikh Ibrahim benen événement bi nga xam ne jar na retenir moy vendredi 31 mai 1968 bobu ministre de l'intérieur ci ndigalu Senghor dañoo décrété won couvre-feu ñu won sax juroomi nit ñuy tok di waxtaan. ndax situation bi critique woon na nit ñi jaaxle woon nañ nguur gi tiitoon nañ juróomi nit mayuñu ko nit nga taxaw di waxtaan ñu décréter couvre-feu kon ku mayut juróomi nit taxaw di waxtaan doo maye mbooloo boo xam ni dañuy jiite jumaa foofu bi ajjuma jotee ñu wax baay ne ah décréter nañ couvre-feu nee nañ julli jumaa du am bàyyi toog ñu yónni benn inspecteur ki nekkoon commissaire de police bu kaw Balla Sy la tudd moom dafa yebal benn inspecteur pour mu dem wax baay ne jëlee na ndigal ci gouverneur de la région gouverneur de la région jëlee ndigal ci ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur jëlee ndigal ci Léopold Sédar Senghor ne tey kenn bu mu julli juma bi mu ñëwee ñu ne ko sëriñ baa ngi ci biir ñu wax ko ko waji ñew présenté wu wax xam nga lan la ko tontu dafa ne ko hé demal nga wax ki la yabal man damay julli juma te kenn meru munumaa tee julli juma parfois tarikh nit ñi dañ ci yokul lu ci bokut waye ma ngi ñaan lepp lu ma wax rek na doon lo xamni dama ci tek sama bët wala ma dégg ko ci lamiñu professeur Barham Diop waye kérok dégg na bala waxtu bi muy génn daal jot sax génn na ñaadam ñaadam dem ci jumaaja waaye tey jii ndam loolu ci li ma xam dégg ko gëstu ko kenn julli wutoon jumaa le 31 mai 1958 1900 euh, comment dirais-je 68 tey jii kon Baye keroog yóbbuwaale na géew mboolem umma islamique Sénégal bu julli wutoon jumaa rek bàkkaar boobu day daanu suñu kaw ñun ñëpp kon ndam lu rëy loolu faydu moo ko indi le détenteur de la fayda moo ñu ko may Un vendredi bo récent le vendredi 26 février 2010 ci inauguration de la grande mosquée de Médina Maulana Cheikh Ibrahim fofu ña nga dañu don ab radio di wax naan ñaseeni dañuy loué ay nit keroog gis nañ lu ñu 3000 et quelques kilomètres trois mille et quelques kilomètres ay nit ñàbb sen dal sen tank doxé kano ba Kaolack lolu nga yakar ni hasard la doxé kano ba Kaolack man kérok ouverture bi wallahi tallahi gisna ay nit ñoo xamni musuma len gis ci télé xawma sax ñi ban xeet lañ kérok RFI dégg na mu né nationalité yi ñëwoon ci inauguration mosquée grande mosquée de Benin, Maulana Cheikh Ibrahim sama nopp RFI ñu ne 127 nationalité waaye tumuranke wut ikhtalafat al sulukum wal axdu mutahidun haqqan li rabbi alhamd ñi ma topp bàyyi wax de sen kallaama utena sen der utena sen provenance utena waye wallahi pass pass bi ben la muy la ilaha illa allah baye daf ñu ngab ñun ñep takku ñu ci buum ak la ilaha illa allah muhammad rasulullah loolu kéemtaane wut lu kéemtaane la Sénégal gii la xewee ñi dëkk côté Tamba bi ñuy gis oto yi di ñëw nit ñi di ñëw dañoo yéemu kenn foogutoon ni nit ñooñu danañ xaj na laa Mawlana Cheikh Ibrahim waaye li professeur di wax rek nee na néegu bàyyi su tuuti soosu mbooloo bu daan ñëw lu mu bari bari dañ fay xaj mbir mi sirru la ñetti àjjuba yooyu taarix da ko war a retenir ñu xam ni loolu dara mayuñu ko kenn mayuñu ko ku mooy doomu Sénégal boobu bu ñu ma déglu en tant que taalibe baay buy wax doomu Sénégal bu yàlla feeñal ci loxoom loo xam ni musu ko feeñal ci loxo kenn ñaata xeet tey jii bu ñuy lim taalibe naa Cheikh Ibrahim yi à travers le monde pour ne pas exagérer plus de trois cent millions de disciples dama ne maa laaj Abdoulaye bi jur bàyyi amu ko woon Seydi Haj Malick Sy amu ko woon keneen ku moom amu ko woon li mu doon saaxibul fayda moo tax mu am ko fépp fu mu dem tapis rouge lañ koy lalal loolu bokk na ci kéemtaan yu tumuraanke yoo xam ne doo ko gis fenn beneen bi ci wàllu diine ba léegi tey jii képp kuy nit ku ñuul ku la jàngal wala ku jàngal ka la jàngal wala sa sëriñ wala nangam cosaan bi dafay dellu ci naar yi diine naar yi ñooñu islamisé loolu depuis onzième siècle la ci jamono almoravide yi ku jàng taarix danga xam li may wax onzième siècle naar mooy jàngale borom der bu ñuul mooy recevoir xam-xam borom der bu ñuul mooy sàkku barke ci naar di génnee addiyaam di def lu ne waaye par rapport ak li nga xam ne moom laa lim ne faydu lu mu indi lu tumuranke gars yi dañ daan ruuxle di dem Mauritanie di fa uti dara boo demee ba dëgër toog koo mënti doon waaye mel nu Maulana Cheikh Ibrahim moo tax Ibou Diouf ne borom der bu weex di raamal nit ku ñuul giñ naa li jiitu baay amut koosi mi ngi fii soriwut à 18 km de Kaolack ku weddi demal nga 41 xabru naar fa 21 yi ay surafaawu lañ ay sëtu yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam dañoo ñëw di ketbal bay di ko bayal tol. Nar nga xam ni macha allah dañoo dañoo fonku sen deret da ngay toog ñu lay upp di la di la jox addiya Waye ñoom ñu ñëw dindi seen kaala yi tak sen digg di bayal nit ku ñuul tolam. lu yéeme la loolu yéemewut ku ko mës a gis feneen amul loolu la ñu defal Mawlana Cheikh Ibrahim ba 41 naar dee fa dee fa ñu suul leen fa jël seen bopp jox ko Mawlana Cheikh Ibrahim te gis nga baay boo demee boo demee boo demee Mauritanie du du n'importe qui moo ko topp de Chérif Douali yi ñoo ko topp te gis nga addiya bu ñu am daw indi na indi Medina Maulana Cheikh Ibrahim nagu gàmmu yi bu gàmmu desee weer ñi ngi jiital gétt nag yi gétt gëléem yi gétt xar yi boole koog addiya ay million ñëw jox xalif bi bu tabaski jotee ñi ngi jiital gétt xar yi boole koog addiya ay million ñëw jox xalif bi ba weeru koor sax li nga xam ni mooy dépense su Maulana Cheikh Ibrahim ci weeru koor ñoom ñoo ko daan joxe te loolu dakkut ba léegi ñu ngi continuer di ko joxe loolu tumuranke wutam lu tumuranke la beneen bi mooy fan nga mës gis ku ko gis na ma wax xoolal Nigéria xoolal gana xoolal Mauritanie xoolal Gambie. xolal Tchad xolal Soudan xolal Niger xolal Togo xolal Côte d'Ivoire xolal Burkina Faso xolal euh, Afrique du Sud South Africa ma génn Afrique xolal France xolal États-Unis xolal Allemagne ba ci URSS bi ki ëpp lu mu bind ci taarixu fayda russe la Rudiger Sisman lañ ko tuddee loolu tumuranke wutam ça fait partie des merveilles de la faïda. nga gis ci Nigeria, rek Nigeria, bay, deuxième démon Nigéria am premier demam c'était en 1946 Mon rek mon démon. def fa juróom benni fan delu. Bay fa un boum, mu bind mul muy albas pour dëggal ni mom moy le détenteur de la faïda. deuxième démon nak, c'était en mille cent 1951 foofu bi avant Baye di wàcc ci tarmac bi problème bu rëy la problème bu rëy la lu tax parce que nit ñi nga xam ni ñoo taxaw de dañ koy accueillir dañoo bari te avion bi mënta wàcc c'était noir de monde ñoom ñëpp ñi ngi taxaw di yuuxu lenn rek lañ doon yuuxu barxaamu barxaamu barxaamu ki mu dendal mu ne ko lan moy barhamu wa ayna barhamu ko mu ne ko bàyyi ñi yow lañuy wax sen lak ibrahima barhamu lañuy wax mu ne ko wa ayna barhamu. wa ma barhamu hatta fannu fi hubbihi wa hamu wallahi lawla annani fanitu shay ahmad tijani haya an mittu goro gor mo man mu ne ko lan moy barhamu ko bàyyi yow lañuy wax mu ne ko kon man ma waral rir mi motax ayda sa yoy sikkar ku waral li شيخ الاسلام مو ورا لي سما خول بي دا فاي سد مون والله بودو تون جيخ بيغا خامني جيخ ناكو تي مولانا ابو العباس شيخنا احمد التيجاني كون تاي كيرسا بون كو فيري غاتيا كيرسا دانا ماراي مو ديلو لب مولانا ابو العباس شيخنا احمد التيجاني رضي الله تعالى عنه لولو ييمي ووتام دك بو خامني جودو وو فا ماغي وو فا دم lii di jarmaa yi katakolle muuse ñépp uyu si ko am na lum ciy wax naan awaluhum awsa wa ahlu jarma kaza dagumba alxayru fihim hamma kaza katkulli wa farfaraw ataw wa min faydi ra'aw kaza ka ganjara hubbu sanga fula gawu aqazu ani wila qawmun kiramun raxbata talaahi wa jaani min burno wa muuse wa mbambarsi plus de 17 xeet ñoy tok bay di wax ci arab ñom ñukoy firi sen lak yi ay animiste yo xamni yéfer lañu bay jël duggal ci diine l'islam li ci gëna yéme man tudduma sax gana tuddatuma tuddatuma Nigéria gana la wax nañ dem gana entre tamale ak yandi lu kim tane la bay mi ngi ci wax ci ben abiyatu taarixam bobu mu ne tirtu ila tamal wa qasdi nasri diinal muaymin wa yuxli xadri جئت وما أمكانني نزل من خسرة الناس ولا الألول فترت فورا قيفة ليندي كأن كل القلق صار عندي جئنا إلى محمد الأمير أميري يند المنبح الكبير وفيدة تيجاني قد تدفخت بيندي والأنوار قد تفتحت وحضرة القدس قد تحققت وتلك الأحجام قد تفوقت فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله فهالها الكفار والمجوس والأمراء فتابت نفوسه radiyallahu taala anhu nee na damay dem Gana li ma yóbbu Gana du dara lu ma yëkkati diina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma demee Gana avion bi bëgg a wàcc waaye mënta wàcc parce que nit ñi dañoo bëri kon la ko daloon Niger Nigéria dal na ko Gana ñiy dawal avion bi am problème force de sécurité jéem nañ ba sonn amuñu solution mu gi ñu laaj ban dëkk moo gën a jege Gana te avion bi man faa moo gën a jege euh, Tamale pour avion bi mën faa wàcc ñu ne Yandi ñu ne ñaata kilomètres la ñu ne 101 kilomètres ñu ne kon nañ wàcc foofu bàyyi nee na bi ma demee dafa mel ni bésu penc la foofu moo gën a garaaw fi mu jóge dafa mel ni bés la boo xam ne yàlla dafa oo mbooleem jaamam yi waaye malgré tout force de l'ordre ñëw nañ sotti nit ñi ndox bu tàng pour avion bi mën a atterrir. nee na bi mu ñëwee ci kër buur ba la dem Muhammadul Amin nee na ku barkel la nee na nag bi mu demee kër buur ba dafa mel ni Faydu dafa nekkoon en promotion mbir yaa ngi bëbb nee na leer yaa ngi fees dell mujj gi mu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala ne laa ilaha illa allah muhammadul arsalahu l ilahu fa xaal al kufar wal majuusu wal umara fa taabati nufuusu nee na ci la tudd baat bi ñi fa nekkoon ñëpp àndandoog moom tudd baat bi moo xam ngay maajuus moo xam ngay yéeféer moo xam nga topp ngay toppam buur bi moo xam ñi fa nekkoon yëpp tuub dugg ci diine l'islam commandant de cercle bi fa nekkoon moo mujj ba événement bi passé mu ñëw waxtaan ak moom ne ko man de dafa am lu ma jaaxal est-ce que xam nga sëriñ bi diggante deux jours quarante-huit heures yi nga fi def ñaata nit ñoo ñëw dugg sa diine bi baay ne ah jotuma koo xam de waaye loolu taxu soxaluma ndaxte sama sang di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne ku fexe ba benn nit jubee ci sa loxo moo gën àdduna ak li ci biir mu ne ko ñun con compté nañ ko calculer nañ ko ci sunu statistiques yi ñuy def mu ne ko seize mille personne seize mille personne bu fekkee ni loolu dafay niru lépp ci yow sëtam bii rek di imam Assane Cissé huit mille personne tuubal na ko dem Cameroun tuubal ko mi ngi ci net bi faydu moo mayee loolu dafa bokk ci les merveilles de la fayda kokoy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala ba léegi ci walu diine bi Maulana Cheikh Ibrahim da fi indi lo xamni ni tumuranke na waaye ñu bari xamuñu ko man damay tok di dégg ñu sunumbaku sunu mbokk nii sunu mbokku tiijaan yaa ngi nii sunu mbokku ñaseet yaa ngi nii waaw loolu mooy lan dafa jot ñu koy leeral ñaseen amut tiijaan benn la tiijaan yu sant ñas mën na am tiijaan yu sant si mën na am tiijaan yu sant sekk mën na am tiijaan yu sant jaxumpa mën na am baay ñas bu doonu tiijaan kan mooy doon tiijaan baay ñas bu doonu tiijaan kan mooy doon tiijaan xam nga ñaaray tax soit da ngaa xamut ku xamul dañ lay wax ne la tarixa bi ñu nekk benn sëriñ la am muy Mawlana Cheikh na Ahmada Tijani li nga xam ni moom la indi képp ku ci tënku taalibe Tijaan nga képp ku ci tënkuwut wut defoog moom nen kon Tijaan moom benn la te li ma waxoon léegi bu bàyyi dooru Tijaan kan mooy doon Tijaan. à 10 ans Abdoulaye wala dul xaaj mag mu barkeel boobu njabootam ñu ngi ci faydu bi nga xamee ni moom sakku na faydu bi waaye gis na ni wàccut ci moom mu sakku léegi fan la nekk mu dem xencu ji ko leer bi joxoñ ko Sénégal kër diine yu bari dugg na fa walliw yàlla la boroom cër la waaye bi mu ñëwee kër Maulana Cheikh El Hadji Abdoulaye ñas le grand bi mu gisee sunu waa ji ah xam ni moom la mu oo muy gone ci at mu ne ko li nga xam ni mooy faydu bi nga xam ni moom la ñuy wax dana wàcc ci yow xaqiqatan waaye du doon loo xam ni majaas lay doon te maa ngi lay xamal ni gannaaw Mawlaana Abul Abbaas Cheikh na Ahmad Tijaani yi ci tarixa bi amul kenn ku mel ni yow te amul kenn ku nar a mel ni yow waaye li ma lay xamal nag mooy danga bari bëri ay noon danañ la noonoo lu ñu mësta noonoo benn wàllu yàlla mu ne nag maa ngi ñaan balaa ngay déclarer na yaay saaxibul fayda maa ngi lay ñaan bàyyil ba ma génn àdduna bàyyi nangul ko loolu mu yeesal xam ci loxo xale boobu ci waxin déyanteeg moom moo tax keroog bi télégramme bi ñëwee ci guddi gàmmu ñu ne ah sunu wëllëre baay bi di Abdoulaye dul Haaj tàgge nañu ko nee nañ génn na àdduna ah jalangoor gi ne tëpp taxaw ca la déclaré officiellement ne mooy saaxibul fayda kon dama ne moom bu duwut tiijaan kan mooy doon tiijaan sànq ay dafay dafa ne xam ni mbaalam bi benn qualité jën rek la am borom mënta mbaal wallahi mënta mbaal waaye koo xam ni mbaalam gi mbooleem xeetu jën yaa ngi ci biir ah kooku mooy mbaalkat mi waaye nag picc bu amul li mbagg day weddi ne benn mënta naaw te bàyyi junniy laaf la yore

calculé de ah kon loolu dafay firi ne ñi fi nekk di coow yépp benn qualité jën rek lañu am benn qualité jën Sénégal rek a leen topp te ku nekk di woote lu ne Maulana Cheikh Ibrahim ñëpp a ko topp dama ne terrain la terrain ngëneel la terrain ngëneel boobu boo ci añaanee wala nga ciy wax naka su dul noonu ku la gën mi ngi ci biir surafaaw yi ñoo la gën ñoo gën say maam gën say sëriñ ñu la ëpp alal ñi ngi ci biir milliardaires yi rek a fi nekk ñi la ëpp daraja ay buur. ñi ngi ci biir buuru kano bi débb lañ ko recevoir ñi la ëpp xam-xam ñi ngi fi am na ñoo xam ni dañu ko koy Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax ku ne ñëw na ku ne ñëw na beneen bi nga xam ni dafa tuburanke mooy da ngay xool tey jii su fekkee ni da am beneen regard xoolal taalibe Baye Niass yi rawatina jamono ji ay xale yu ndaw ngay gis mais ni ñuy dundee yàlla ak ni leen di yàlla di jaral ak tudd yàlla ni mu leen jaralee xoolal beneen kuréel amu fa pikiir boobu nag sàngara leer boobu Maulana Cheikh Ibrahim moo ñu ko branché ba lu dul yàlla safuñu foo fekk gars yi jigéeg seen kurus ñi ngi yëg yàlla ñi ngi dund yàlla ñi ngi mos toqantal ci péew yàlla bi muy góor muy jigéen fexe na ba mbaal képp koo xam ni ndaw nga yaa ngi doon yëngu ci neleen loo xam ni naka su du noonu tey jii dëdduloo na loolu bëgg loo la yàlla jubluloo loo la yàlla seey seeyloo la ci yàlla loolu moo waral fàtti fàtti gi ak dund gi nga xam ni ñu ngi koy dund yàlla beneen kéemtaan boo xam ni mi ngi ci ba léegi ci wàllu diine Maulana Cheikh Ibrahim dafa taxaw def benn jàngat mu ne man daal seetlu naa ni cër bi ñu war a jox jigéen ñi des na mu ne dangay ngay xool yonent yàlla Ismaïl Haajara la ko yàlla dénkoon ba ñu nekkee ca àllab kertandeng bi ñu nekk foofu mu topp ko di ko toppatoo ba yonent yàlla euh, Ismaïl doon limu doon nga xool yonent yàlla Insa am na ndey waaye amut baay yaayam moo nekk ci wetam nga xool yonent yàlla Muusa yaayam rek la ñuy tudd du ñu tudd baayam nga xool yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang mboolem mindaa foon yi ba mu amee ñaari weer wala ñeenti weer ci biiru yaayam la baayam génn àdduna mu ne amaana goo kóllëre gu rëy googu yàlla teg ko ci loxo jigéen kon yàlla fonk na jigéen ba tax na man danaa defal jigéen ñi lu leen kenn defalut ci école am ci la sayda mariama ñas gini umul quran ci école am ci la sayda roqaya ñas genné muy jigen bu njëkk ci langue arab te yoré der bu ñuul motax mu wax len ne len ya ayyuhal bannatu zaibna ila nailil ula amma bi abdani fala e eh, yen sama dom yu jigen yi suné dom domi roxo tax muy wax nee na rëj rëj dooree nag góor ñi ci maqaama yi ci xam-xam ci leer dem na ba benn muqaddamam yore ay taalibe am benn jigéen boo xam ni ci zaahir dafa góorgóorlu jigéen la ci zaahir bàyyi laaj ko ne mahasid yi est-ce que yell nañu jox ko ko bàyyi tontu ko bim ko tontoo dafa ne ko wama kullu baj zuub zaakal aarifi mu ne ko bal من بقى بعد الفناء وسلك نهج رسولي ونفس ملك هذا هو رجل انثى او ذكر مونيكو كي عارف تي باي واحد نينا كي عارف تي مان موي كو خامني غناو بيمو دافا كي دو دو ماجزوب ييب دو ماجزوب ييب باي عارف بالله لاج عارف بالله موي كو خامني دافا ام فنا تي يالا ام فاتو تي يالا بيو يالا بي dund yàlla dem ci kennaay ak yàlla bi ba jëmmal kennaay ak yàlla gi ci lépp ci fépp ba faw gannaaw gi mu bàqaa ci yonent bi sallallahu alayhi topp ndénkaaneem ci wax ak ci jëf ba pare mu yilif bakkenam maanaam not bakkenam ilif nee na kooku kooku la ñuy wax góoru yàlla ci ñun bu dee góor góor la bu dee jigéen jigéen góor la looloo tax ci faydu bi da nga gis ay yarakat yoo xam ni jigéen lañ ci zahir waaye ay góor lañ ci maanaa looloo tax ci faydu bi nga gis ci ñoom seen taxawaay moo tax Baye jox na leen lu tumuranke loo xam ni foo dem feneen tamit doo ko fa gis ñu am ijaaza ci tarixa bi di ci liggéey liggéey bu yaatu loolu la delloo njukkal jigéen ñi muy Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu moo tax mu ne buuxante leen ak góor ñi ci maqaama yi ci xam-xam ak lépp doomam yu góor yi ak doomam yu jigéen yi ñoo bokk bépp daara bu ñu jàngee ak ak taalibe ak doomi taalibe bi kon koku outout outout différence so demee feulé ñu nan Niger ben domam bu jigen mi ngi fa Seyda Umu Kalsum ciota limu réaliser fofu rek ku dugg si net bi dang ko xam xamni ni ci nonu lañuy ñuy delloo euh Umu Suleymin Seyda Umu Suleymin ci taxawayam ak bëgg alquran da ngay xool tey jii dem dañ nan la mu nangam wala sëriñ nangam. moo samp jumaa ji moo samp zawiya bi moo samp nangam jigéen la waaye góor la dafa jëmmal jumaa dëkk baayam tey ba mbi téyeen nam mu fa def internat pour ñu fay jàng alxuraan waaye sànq ñi ngi waxtaan mu ne comme waajuram bu jigéen ci alxuraan rek lañ ko xamoon dafa dëddu dafa bëgg continuer loolu Medina Maulana Cheikh Ibrahim doog a jubal ci lële nga xam ni Maulana Cheikh Ibrahim dafa invité yi ci képp ku ko yàlla booleel ba mu doon góoru yàlla bu taxaw ut yàlla sàkku yàlla dellu ci boroomam loolu rek moo ko yitteel ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax nga gis ci yar Maulana Cheikh Ibrahim yar na koo xam ni munut liir juge ndeyjoor dem càmmoñ munut liir juge càmmoñ dem ndeyjoor te lépp lum la wax xaqiiqa la téere la doo ko dindi mukk ku weddi déglu lu Ibou Diouf lu mu jàng. ku ma sa gis ku ne Ibou Diouf dafa jàng nangam wala dañ ko jàngal defe naa Baye Mbaye li ma wax am na soppee Ibou Diouf la ñu lay ndokkel waaye tey jii bëri na looy toqamtiku ci fayda yaa ngi ko nampee ci wayu Ibou Diouf yi parce que mi lay doxal seyru jàngut anglais jàngut français jàngut arab waaye ci wayam yi anglais daf ciy feeñ français daf ciy feeñ arab daf ciy feeñ moo tax nag mu ne bu leen ma éem éem leen barxaama arnas baa ngi ca moom kum ko gaw nga mel ni reetet kookoy Maulana Cheikh Ibrahim ci siru tëbbeel tëbb tëbb tëbb ci la lay solee lim la sol waaye ba léegi ci njàngaleem le professeur émérite le premier académicien noir de la langue arabe la professeur Barham Diop yéeme ci lépp duggal ci net bi nga xool arab yi li ñuy wax ci moom nee nañ mosuñoo gis jëmm ñu déggee ni moom arab ci école am la génne moo ko yar jaarut ci benn formation académique ci ron baay rek la nekk ba mel ni mu mel nga xool moom toog na nee na dem na un jour saoudia xaw ma na war la xaw ma makkatal mu karam nee na mi ngi toog ci sàppe bi di xaar imam bi imam bi di xutba imam baa ngi yore feuille yu bëri di téye bu mu bu mu jàng ba pare teg bu mu jàng ba pare teg feuille yu bari lool Medinatul Munawar nee na Medinatul Munawar la feuilles yi bëri lool professeur Barham jékki-jékki rek jooy xaal jooy jooy yu métti ñi dend ak moom di ko nax di ko nax mu ne ñu yaakaar ni xutba imam bi moo rogalaat sama xol ba may jooy mu ne wallaahi du loolu mu ne damaa xool imam bi ak fëyam yu bëri yii man mii buñ ne woon pëkk-pëkk ne ma taxawal ci bar bi nga def xutba du ma téye benn fëy te danaa wax lu raw moom la mu wax ma santee ko sama sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim ففاد مني دروره المعاني ولا تحاملي من ذاكها يسير سير الأبدي يجني المعارف بفيد المددي noonu la yaree ay taalibeem ci Dakar tey jii xar dafa am ween day nàmpal picc amut ween waaye bég bi lay lekk ba suur dem sol doom ji pour mu suur waaye mbonaat amul bég amul ween te dafay am doom yu bari bu leen bëggee jëriñ day lekk ba suur ñëw xool leen bëtu mbëggeel doom yi suur fees dell Mawlana Cheikh Ibrahim noonu la tëbbee ay taalibeem moo tax ci faydu bi ngay gis koo xam ni jaaru benn formation académique islamique di wax yenn xam-xam yoo xam ni yow danga naan lii nu mu demee waaye ndekete xam-xam du ci kayit yii lañ koy jëlee laysa fil kutubi wa dafatirul ilmun innama al ilmu fi suduri rijal ci dënd góor lay jóge mu tëbb la ko nga doon koo xam ni moo tax ibu Diouf ne arnas baa ngi ci baay kum ko gaw nga mel ni reeteet moo tax Ibou Diouf reeteet la woon day taxaw rek di sadd ay wayam way yoo xam ni macha allah boo ciy toog di xalam rek da lay yóbbu ci péyu yàlla bi kookoy Mawlana Cheikh al Islam Haji Ibrahima Niass te lii ba léegi ci wàllu religieux bi laa nekk nga xool li nga xam ni mooy ci wàllu social xanaa tuuti lañ ciy laal sànq dama wax Cheikh Abdou bu ñu joxee sëriñ bi mu commencé. te nee nañ xalifa bi mi ngi fi da koy dagg te moom la ñuy déglu naa occupé nit ñi pour moom bu xalifi ñëwee barkeelu tuuti dem ñu dund xaalu Baba Lamine bi ci moom parce que ci branchement Baba Lamine lañ ko branché yàlla na yàlla defal ko tawféex ci liñ koy xaar ci lii nga xam ni mooy ci wàllu social dañuy jaar tuuti rek Maulana Cheikh Ibrahim. ci faydoom bi barke faydoom bi problème yu bari réglé wuna xam nga li ngay gis ñu naan intégration africaine so xolé 2006 Muhammad euh, Mouhamad Khadafi ñewon na Sénégal da fay dem Kaolack Medina Baye 2006 bi mu démé julli fa juma mais ci waxtanam bi dafa am lu am solo lu mu wax mune dama damaa pour tebusi ci xam-xamu Maulana Cheikh Ibrahim ndax politique d'intégration africaine bi nga xam ni réussir nako état réussiru ko ambassadeur yi réussiruñ ko képp koo xam ni mouvement nga wala organisation wala ONU wala OIA réussiroo ko waaye résultat bi ci Maulana Cheikh Ibrahima am te moom du am départ d'état amul armée amul dara loo xam ni utiliser na ko lim ci réussir doomu aadama musu koo réussir. na day doy tegtal événement 1989 yi Médina xam nga lan la tuddoon dugg mucc duggu mucc xam nga lu tax Maulana Cheikh Ibrahim ni mu réussir intégration africaine mooy dafa xam ni foo dugal mariage rek mbokk dugg na looloo tax tey ji Seyda Umu miin maa ngi jéggalu ku ko xool rek danga naan shérif la naar la surtout Maulana Cheikh Ibrahim la boo demee Ghana kazalika boo demee Niger kazalika boo demee Nigéria kazalika boo demee dëkk boo dem daanaka maye na fa ay doomam wala takk na foofu wala ay doomam wala ay sëtam jël nañ foofu léegi bu mbokk duggee dara mënatu na xew foofu lu rafet rek a xew ñi ngi wax ni xalif bi mi ngi ñëw lillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bàyyi nee na radiallahu taala anhu jaam yu bari santuñu te teraanga bu la ko yàlla joxee yaa ngi koy yeewee ci buum cant sëriñ bi jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan wallahi amoon nga ngant pour bañ a ñëw waaye mayoo sa bopp ngant parce que kenn rek a fees sa bët te moo nekk sa kanam muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu moo wax ci way bi ne daxayfun alilun shaibun mutahammisun li yansura diina laa yuridu xitaala ci tànk yooyu nga nekk baat bi ñu naan noflaay waxoon na sunu xalifa alaaji abdoulaye yal na yàlla yokk leeram ne ko génnee leen ko ci seen xaamus ndax amut jéego yooyu lañu gis ngay séqi ñëw bii nga ñëw buñ la xooloon rek doy na boo waxul rek doy na waaye li muy firi bëri na yaa ngi ñuy wax laa xarwa góorgóorlu leen nii la du neneen fii la du feneen ndaw yoo xam ni mënuñu laa apporter dara lu mooy lëjal la ñu yëngatu ci gox-goxaat bii dara taxu leen yëngatu lu mooy xitmaal Maulana Cheikh Ibrahim te xitmaal Maulana Cheikh Ibrahim mooy liggéeyal borom bi subhanahu wa taala ki nga xam ni moo ko initié di sa doom di sa taalibe Cheikh Abdourahmane Ndaw Al Karim bokk ci Nuurul Basar doon takk der ñu indi woon ko fi pour muy contrôler fraude wala muy quittance wala muy def ay escorte wala walla walla waaye mi ngi ci liggéeyam yàqalu ko dara waaye ci barke Maulana Cheikh Ibrahim mu samp fi jumaa joo xam ni tund bi yëpp doo gis jumaa ju ni mel ci barke Maulana Cheikh Ibrahim mu samp fi daayira boo xam ni li ñu jot a liggéey ak réaliser lu mucc ayib la muy morgue dëkk bi ci loxoom la ko yàlla feeñalee ambulance hôpita hôpitalu dëkk bi mu équipé sëriñ daara yi mu dimbale am projet bu mucc ayib boo xam ne jumaa ji dañuy teg ci kaw institut islamique dem ba waa dëkk bi delloo ko njukkal tuddee ko école à sonage mu doon loo xam ne lu tumuranke la ça fait partie des merveilles de la fayda ndaxte baay moo waxoon wa maratan uxra taraw na ajaban min faydi zalxat mi imaami nujaba lii kéemtaan la feneen lañ ko doon séntu waaye lii dafay wane doole ak njëriñu Mawlana Cheikh al Islam Haji Ibrahima Niass sëriñ bi jërëjëf jërëjëf ndaw ñi dañoo bëgg ñu leen encouragé waaw góor dana tax nit góor góor te sa jëf jii dafa raw waaw góor duñ la tardeel dañ lay jox kàddu gi yow lañ doon xaar sa doom après mu gàmmul ñu parce que xam nañ ne dafa xat te da nga war a dem Soudan jërëjëf. liggéey fay du baay bi Sidi Barhama Kossy am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay bi Sidi Barhama ñu ngi di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla